coow kilifa ak ba tey jilee jeexagul ndaxte ñu ngi ci kanamu procureur bi ci ay xibaar nee nañu sax dañ leen yóbbu euh, ca tribunal des flagrants délits li nu mel mooy firndeel rek jàpp ñu leen teg dil loxo ci poos waaye tamit seen dossier danañu ko jébbal kii di juge deuxième cabinet kon tey jii la ñi ngi xaar ñoom ñaar fan la ñuy mujjee ci wàll boobu yëpp ci loolu ñu daal di wax liñ leen di toppee daal mooy délit d'escroquerie association de malfaiteurs maanaam dëbbkatu linjaa ak mbootaay boo xam day def ay ñaawteef kilifa sax nee nañ ci ay xibaar porté na plainte xaritam bii di na jàlloo bi ko filmé woon ci biir oto bi bokk na ci tamit plainte bu mu def ci kaw euh, kii di Dame Dieng nekk administrateur leeral point net ndaxte image yooyu di vidéo yi foofu lañ ko daal di génnee ca sitam kon plainte yooyu nee nañ ñu ngi ko déposé ci brigade de lutte contre la cybercriminalité maanaam yiy xeex. lépp loo xam ne moo jëm ci ay ñaawteef mu nekk ci xarala yu bees yi kon lañ leen di tuumaat ñoom ñaar ñu le di Thierno jàlloo ak Dame Dieng nekk administrateur leeral point net muy wàllu collecte illicite de diffusion de données à caractère personnel maanaam jël jëmmu jàmbur di ko dugal ci xarala yu bees yi wala boog nga leen koy paasante te ñaanu leen ko ndigalam